jëf ya saar naka sowool mi tëkkoorey taalibe borom bi ba di ko noyee far mu dem nag ca saraxalekat bu mag ba laaj ko ay bataaxal yu mu yóbbul jàngu yu dëkku damaas noonu ñu mu fa fekk te ñu bokk ci yoon wi góor mbaa jigéen mu am dogalu yeew leen indi leen yerusalem waaye bi muy jub damaas ca saasa leer gu jóge asamaan melax ba ëmb ko mu daanu ci suuf dégg baat bu ko ne sool sool lu tax nga di ma fitnaal mu wuyu ne yaay kan borom bi borom bi ne ko maay yéesu mi ngay fitnaal waaye jógal dugg ca dëkk ba te dinañu la wax li nga war a def nit ñi ànd ak moom nag taxaw waaru ba luu ci li ñu dégg baat bi te gisuñu kenn noonu soowal jóg xippi waaye gisul dara kon ñu womat ko yóbbu ko damaas diirub ñetti fan gisul dara lekkul naanul amoon na nag ci damaas taalibe bu tudd ananiyaas bi loolu amee nag borom bi feeñu ko ne ananiyaas mu wuyu maa ngi ni borom bi borom bi ne ko jógal nga jaar ci mbedd mi ñuy wax mbedd mu jub mi te seet ci kër yuda nit ku tudd sowool te dëkk tars ndaxte mu ngay ñaan te gis naa ci mpeeñu nit ku tudd ananiyaas mu dugg teg ko ay loxo ba muy gisaat waaye ananiyaas tontu ko ne borom bi dégg naa ci nit ñu bari ci mbirum kooku ñu seede lu bari lu bon lu mu def say gaay ci yerusalem te indaale na fii sax sañ-sañ bu jóge ca saraxalekat yu mag ya ngir yeew képp kuy tudd saw tur waaye borom bi ne ko demal ndaxte maa ko tànn muy sama jëfandikaay ngir yóbbu sama tur fa kanam ñi nekkul yawut ak fa kanam buur yi ak bànni israyel te dinaa ko won coono yu bari yu mu war a dékku ngir sama tur ci kaw loolu ananiyaas dem dugg ca kër ga teg ay loxoom sowal mu ne ko sowal sama mbokk borom bi yeesu mi la feeñu woon ci kaw yoon wi bi ngay dikk moo ma yónni ngir nga dellu di gis te fees ak xel mu sell mi te saa sa lu mel ni ay waasintóor génn ci ay bëtam mu daldi gisaat noonu mu jóg ñu sóob ko ci ndox ba noppi mu lekk amaat doole bi mu ko defee mu toog ay fan ak taalibe ya nekk Damas ca saasa muy yégle ca jàngu ya ne yéesu mooy doomu yàlla ñi ko dégg ñépp waaru naan ndax du kii moo daan tas ñi tudd tur woowu ci Yerusalem te mu ñëw fii ngir yeew leen yóbbu ci kanamu saraxalekat yu mag ya moo na sawool di gën a am kàttan bay jaaxal yawut yi dëkk Damas ci di leen wax ay firnde ne yéesu mooy almasi bi bi ñu ca tegee ay fanni fan yawut yi daldi gise ngir reylu ko waaye sóol yëg seen pexe fekk guddi ak bëccëg ñu doon wottu bunt yépp ngir man koo boom noonu taalibe yi jël ko ci guddi def ko ci dàmba gu réy ko ci miir bi yoor ko ci suuf bi sewol agsee yerusalem mu jéem ànd ak taalibe yi waaye ñépp ragal ko ndax gëmuñu woon ak taalibeem ci kaw loolu barnabaas jël ko yóbbu ko ca ndaw ya nettali leen ni sowal gise borom bi ci kaw yoon wi ak li mu ko wax rax ca dolli fit wi mu doon waxe ci turu yeesu ci damaas noonu mu nekk ak ñoom ci yerusalem di dugg ak a génn di wax ak fit ci turu borom bi muy wax ak di werante ak yawut yi làkk grek waaye ñu di ko wuta rey bi ko mbokk yi yégee nag ñu yóbbu ko ci dëkku sesaare yebal ko dëkku tars noonu mbooloom ñi gëm nekk ci jàmm ci biir diwaanu yude gépp ak galile ak samari ñuy gën a dëgër di wéy ci ragal yàlla te yokk ci ndimbalu xel mu sell mi piyeer nag di wër di jaar fu nekk tey dem ci gaay yàlla yi dëkk liid mu gis fa nit ku làggi tudd ene tëdd ci basaŋ diirub juróom at piyeer ne ko ene yéesu kirist faj na la jógal te defar salal noonu mu daldi jóg ca saasa bi ko waa diwaani lidd ak saron gépp gisee ñu daldi woññeeku ci borom bi amoon na nag ci dëkku yoppe taalibe bu jigéen bu tudd tabita liy tekki dorkaas te muy wey ci jëf yu baax ak saraxe ca fan yooyu mu daanu wopp ba faatu noonu ñu sangu ko teg ko ca néeg ba sut ca taax ma ginnaaw li du sorewul ak yoppe nag te taalibe yi dégg ne piyeer a nga fa ñu yónnee ko ñaari nit ñaan ko mu ñëw ci ñoom ci saa si bi ko piyeer déggee mu jóg ànd ak ñoom bi mu ñëwee ñu yóbbu ko ca néeg bu kawe ba fekk fa ay jigéen ñi seen jëkkër faatu ñu daldi wër piyeer ñépp di jooy di ko won kamisol ya ak mbubb ya dorkaas daan defar ci dundam ci kaw loolu piyeer génne ñépp ci biti mu sukk ñaan ci yàlla ba noppi wëlbatiku ca néew ba ne ko tabitaa jógal noonu mu xippi gis piyeer daldi toog piyeer may ko loxo yëkkati ko mu woo gaay yàlla ya ak jigéen ña won leen ko muy dund mbir mi siiw ca yoppe gépp ba ñu bari gëm borom bi ginnaaw loolu piyeer toog ay fan ci yoppe ci kër ku tudd simon miy wullikat